final raw gàddu baa ngoongu daw na jël ko daw na jël ko Ousmane ak Ngor Ousmane ak Ngor laa ilaha illallah ñu ngay bëre bay jeex ñu nga cale dara xewagul daw na jëli ko Ngor yokku na ko takk na ko ngoor yëkkati na ko dóor na ko ci suuf ah way Ngor ñax daan na ko jëli bu rëy te leer yëkkati dóor ci suuf. doone xale mbuur ba final poids léger eh ñaari xale yaa ngi ca géew ba xale yaa ngi ca géew ñaari xale ca géew ba sol na ko de Tony Tony takk nañ la wala Tony nañ la daan de Tony bañ na Tony mbotti nañ la yëkkante mboot Tony ak xale mbuur bi da koy sukkar bi da koy bi daan na ko oh Tony waay jël na final la saba toone ngook toone ngook dan ko ndombo abib na nga dégg mbayang li muy wax lan la naafio dégguma séeréer dégg nga séeréer ndax sànq yaa ne ma mbay li muy wax neex na nañ ko jël dégg nga di wax yow xam nga ko xool tëggkat yow ñoom xool nga ne ñuy tëbee ca côté ba eh way yaa xool tëggkat ya waaw eeway cey Momo Ngom ak orchestre am bi waaye Forza fayu na ci kaw pakala de jëli bu gaaw Zos Aline Seyde daan partition médicale santa ñing lu arbitre lu xew mi-temps wala lan mi-temps xaalis ba 5 million arbitre atte na leen avertissement ku ne jëlaat nga muy ñaar ku ne am nga ñaar avertissement ku ne am nga ñaar cey Momo mooy tëgg nuy naa soppe ñoom Awa Diop waka e Simon jëli na ko dul saane génne ko remplacer ko Simon waaw waaw fàq na ko mu bañ ana Adama Ndiaye kenn bëggu la ñàkk lañu la ne kenn bëggul la ñàkk kenn bëggul la ñàkk kenn fàq na ko wër ko mu bañ Simon lank na de da ko wéyale woon dégg nga de gars yi d'accord ñoo arbitre ba de combat bu metti waay lu xew trois avertissement Doudou Sané jël na ndam la du Sané jël na ndam la ci boobu waaw tournoi bi mu mel ni jël nga ko mais tournoi bi daa mel dafa metti woon ci yow wala waaw waaw gis nga lamb moo demee noonu rek des fois de ngay nekk des fois doo nekk quoi te boo xoolee yàggu ñoo compétir ñaari yoon la ñu gën yaagu ñoo compétir ñaari yoon la ñu gëm nag démb ak tey mënul yomb mënul yomb ndaxte compétition bokkul ak entraînement affaire yooyu foog nga gérer sa gérer sa bopp boo nekkul nga xam ne bokkagoo mais da ngay fexe nekk loolu la ñu bëre rek. sa combat ak Biram Bisin andi na fi coow lu bare bare bari ba gars yi ay affaire loo ci mën a wax. Biram Bisin dañoo yàgg a bëre instant yi ñu ngi bëre ay huit yooyu dañoo yàgg bëre kon itamit bu demee bu amee coow. Euh, war na ndaxte itamit dañoo waroon a bëre carrément mais day réserve man ma réserve sama bopp bu ma amee avantage ci sama bopp loolu kese waaw. lay wax mbokku séeréer yi o fogale séeréer. waaw gidmaa dina paax a paax jegim David nen i joka dina njala a paax andama teen na paax a paax waa Diofior région Fatick fop jegim David nen i mu fa fan sa duur saane rek mais jokama njal kontaan ci kon mbokk defe naa lii moo amoon stade Iba Mar Diop Jax moo fi tegoon 5 million raw gàddu bi ngoor ñaax moo ko gagné poids léger bi dooni moo ko gagné poids lourd bi Doudou saane ci kaw ki nga xam ne moom moom mooy Simon bu ñoojoor lamb nag nii lay demee à sa chaque fois rek bu mis amee aw am ku ko gagné donte lamb ji bëri woon na coow waaye loolu loola waaye mën a wax rek Doudou saane moom jël na ko amateurs yi nag li leen di gën a neex mooy su ñuy bëree jël la am mais des fois nag. lamb simple loolu da ci am parce que avertissement yi day compter te mbir tamit lool dañ ci bàyyi xel di ko bërewaale kon félicitation à Doudou Sané di courage Simon loolu mooy lamb parce que tournoi yi day continuer ah weekend prochain yeneen tournoi am na ay tournoi tournoi tournoi Jackson nag tey 5 millions la tegoon le 2 janvier Jackson fas na yéene teg fi 10 millions muy loo xam ne kon na ko ñëpp bàyyi xel muy nuyu sama mbokk yëpp rawatina nag sama mbokk séréer ah. waa ñoojoor waa jonwaar waa euh, euh, jofiyor fépp fu séréer nekk rek Joal fàttewuma bépp tundu séréer maa ngi bëggee ñëpp mais di nuyu sénégalais yëpp parce que sénégal séréer bi joolaa bi njaago bi soose bi tukkulóor bi ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay yàlla na jàmm yàgg di jox gars yi dig daje beneen yoon si beneen tournoi ci Equivox ak Babacar Habib moo nekkoon si caméra bi ak montage bi ba beneen yoon incha allahu rabbi